monsieur le ministre maa ngi lay renouveler waat bu baax samay félicitations ak samay encouragement yaakaar naa ne bi nga ñëwee ci gouvernement au Sénégal ba secteur bu ñu la jox rek des ngi def ay résultats donc ñu ngi lay ciy félicité bu baax mais monsieur le ministre félicité le aussi ci réalisation yu am solo yi nga xam ne def ngeen ko ci secteur tourisme monsieur le ministre démb rek yéen ngi doon réceptionné Airbus bi nga xam ne A330 ngeen tuddee ko Sine Saloum euh, di ko rafetlu bu baax monsieur le ministre mais yaakaar naa ne Airbus yi ñëw dinañu ci dégg Mbour Géej wala la Petite Côte parce que Mbour symbole la ci walu tourisme monsieur le ministre may demander rek à tous les sénégalais et à toutes les sénégalaises ñu man di voyager ci li nga xamantene moy suñu compagnie aérienne te japp naane ne réew yu bari non lañ koy défé mu ñu commencé ko fi au niveau de l'Assemblée nationale et pour toutes les autorités du Sénégal nous avons ñuy voyager sur suñu compagnie nationale Bob Air Sénégal monsieur le ministre concernant le crédit hôtelier dama vois ci rapport bi nga 12 entreprises hôtelières et touristiques qui ont euh, financé mais il y a un ci qui a c'est dans euh, c'est sur la Petite Côte Tembour, euh, du secteur du département bu am solo le tourisme monsieur le ministre Mbodiène qui est dans la commune de Nguéniène à Pointe Sarène bi nek dans la commune de Malikunda c'est des nouveaux sites touristiques qui sont ne euh, liés avec la SAPCO monsieur le ministre je laaj travaux yi fan ak euh, ko livrer la population de la Petite Côte monsieur le ministre je vais ñu renforcer bu ça c'est une question vous may poser au ministre des finances et des et du budget pour nous renforcer davantage la SAPCO parce que moi yor liggéey bi te liggéey bi mu tàmbali di ko def liggéey bu am solo la te département de Mbour da koy xaar ndax monsieur le ministre bo xoolee dañ dan wax club adjana, tey jii euh, zone boobu noonu yëpp euh, chômage bi dafa bari te jeunes yi di xaar li nga moi ne mooy site pour man ci trouver wat euh, ay ay ay ay emploi may laaj rek monsieur le ministre euh, liggéey yi fan la ci toll wax ko pare sax mais ñu renforcer SAPCO pour que liggéey bi gëna a gaaw foofu laay dugg nuyu le directeur du SAPCO nuyu suma frère Alioune Gningue de même que ma sœur euh, Ndeye Awa Mbodj ak Bamba Mbaw monsieur le ministre érosion côtière xam nañ né yoro environnement mais érosion côtière vous avez le secteur du tourisme donc en collaboration avec le ministre de l'environnement monsieur le ministre lan ngeen def pour faire li érosion côtière parce que gis nañ sur la petite côte hôtel yu bari dañu monsieur le ministre monsieur le ministre auberge ak kër yi nga dañ résidence privée tourisme aussi sur la petite côte nous tamit war ngeen solution pour lolu meuna parce que dañ koy def dans la clandestine euh, monsieur le ministre AIDB dañu gis ay groupe de jeunes qui xam dans le département bëgg ci secteur du transport mais problème que nous am mooy mënuñu intégrer AIDB te yaakaar naa ne aussi l'AIDB. retombeem ñun ñu dëkk ci département bi war nañ ko parce que nous avons des jeunes qui ambitionnent vraiment monsieur le ministre d'investir ci euh, secteur boobu ci le taxi ak euh, yu mel monsieur le ministre li ci des dinaa ko tënk ci benn en tout cas vous avez tous mes encouragements Je vous ñaanal collaborateurs pour le rayonnement du tourisme sénégalais